Ah, lii mooy ñun li tax ñuy dox mbokk mooy dem ci askan wi déglu ko fii ñu nekk ci Ndar doon dëkk bu rafetoon doon capitalu Sénégal Ndar googu problème am coonoom yuuxoom ak mettitam mooy Guet Ndar ak Langue de Barbarie waa Ndar boo waxal danaan la foofu su baaxee rek dëkk bi noppal kii ñu fi déglu léegi muy Bamba dafa waxal askanu Guet Ndar gépp lii échec gu la ñi fi nekk ces vingt dernières années ñoo sooke lii te mënuñu ko faj mhm. ñëw waxtaan ak ñoom Bamba ak kilifa yi ñu fekk yëpp mooy dañuy taataan ci ñoom lan une solution parce que li ñu gëm ñun moy nit ki fa muy dundé le a xam nan la koy faje bima Bamba légui déglu suñu solution parce que fi ñetti problème lañ fi tudd bu jëk bi érosion côtière suñu kanam gis ngeen yi ñu yi mënul érosion côtière fi def bu le problème bi moy chenal bële brèche bi brèche bi Bamba waxna solution bi néna li ñu fi def parce que néna dégg na 12 milliards dem na fi dafa ni nañu déllu fa mu soké wo ñu régler ko fa benen bi moy pétrole bi exploitation bi nga xamné dafa jël d'abord fañ daan nappe mhm. té mu doon fa gënon baax le gars yi jël lan moy compensation wu ñi mané li dal gendar ci nap gi dal gendar ci érosion côtière ak milieu moom dal toutes les villes côtières du Sénégal amna ñu 800 km de côte li ñepp sétlu moy dëkk yépp ngi dem parce que géej gi ngi leen di mëdd te nit ñi amuñu fi ñu jëm motax ñu waxtaan ak ñoom ni leen ñun dey li ñu gëm mooy defar lii dafa jot parce que dañuy yaroo diggante Ngor Yoff Ouakam ak Cambérène yaroo diggante Bargny ak Tëngéej muy zone yi nga xam ni fala géej gi di gën a def yi dégâts ñu wax leen ne ñetti problème yooyu am ñun mën nañ ko solutionner mais ak ñoom ak ñoom parce que ñun loolu mooy suñu doxalin nit ki li muy dund moo la ko gën a xam Si ko boolee nan lañ koy mu bokk faire parce que la te lay liggéeyal ma wax né dama wax wax licence de pêche Sénégal ko wax ni Khalifa Sall président de la République licence de pêche ñu ko parce que doon nañu jox sénégalais licence mais ñëpp xam nañ ni sénégalais ont licence dañuy ay mères porteuses lañu dañuy yenal ay ñeneen donc lima gëm moy waxna ko ñom Bamba même beek beeg dëkkuwaay bi dañ ko war a defaraat parce que suñu dëkku maam yi muy Ngor ak Yoof ay concession lañu xamone xamoon fanweeri nit dekk ci kër so leen fi jël bëgg loger ben nit rek la woo problème bi motax man leen ñaari solution la ben bi soit ñu dét yóbbu mais so leen di yóbbu ña borom kër ya fa màgg dañu war am kër sinon ya nga naxé ou bien Sénégal mo war changer xel mentalité wu kër dëkk ya nga xat dëkk ya nga touti kenn mënatu fi am 550 cent cinquante mètres carrés yow kenn lolu mo xew yi dëkk yu bari légui puisque croix démographique bi dañuy dëkki kaw mom la leen wax aussi mhm. man leen dañuy réfléchir ci lolu comme que kenn bëggu fi joggé fii la ñuy dunde fii lañ dëkk fii lañ cosaanoo nañu xalaat nu ñuy dëkkee kaw def ko ay étage mhm. su fekkee am na juróomi borom kër juróomi kër borom kër wu nekk am am étage wala appartement loolu dem leen nañ ko xalaat parce que su jamono di dox xel day dox mhm. te xel rek mooy nit nag fii mënuñu fi jóge parce que seen lépp fii la mhm. nañu xool nan lañ fi dese def seen boo xam ne dana tax ñu mën lii ñiit pétrole yii nga xam ni ñii dañu am manque à gagner parce que fii lañ daan nappe mu doon yoonu napp il faut mu am compensation lañ lañ leen compenser man lii laa yoroon maa ko moom ñu dindi ma fi war naa la compenser pourquoi mm-hmm. defuñu ko mm-hmm. donc problème yi daal bari na mais ñett yi ma brèche bi exploitation bi érosion côtière bi licence de pêche yi de dëkkuwaay bi ak dëkkin bi mm-hmm. yooyu dama leen wax ni Khalifa Sall président du luxus du ma wax nit lu ko neex ngir falu dara mhm. jaru ko ci àdduna mhm. donc dam ni leen ci yéen la ñuy ñu toog waxtaan trouver solution en tout cas loolu mooy ñu ñor loolu moo ñu itteel Abba seede la ci waa Guet Ndar yëpp la ci man lu ma wax def ko ci ngi merci beaucoup